samedi 3 août 2024 fii ci arène nationale Prési production moo fi oo tey di di dernière journée tey diggante Aïdara ak Samba Ndeleng combat spécial bi dox si diggante am site Thiatou Dalifort ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax di leen siyaare yéen ñi nga xam te ne yéen a safoo la Bantamba TV waa ak lamb di ñëpp waa kër gi foot maa ngi leen di nuyu kër gi foot maa ngi leen di nuyu di Pa Omar maa ngi lay nuyu sunu capitaine Pa Omar nuyu naa la siyaar naa la di nuyu mafia yëpp di wax di leen wax ni nag allah ah Bantamba TV Alburaax am nan marché rëy <laughs> waa Albraax am ngeen max de seet seet seet seet bantamba ngeen di yab ñi woo ñëpp inchaallah deuxième baag noonu dox ci diggante Radiakhé 2 ak ba Boy Ndiaga présenté moo nekk deux Boy Ndiaga tey nag président production li nga def moom macha allah tey nga ne da ngay sargal la police de munitions. léegi noonu présenté nañ ñaari mbëri diggante Radiakhé ak Boy Ndiaga. Radiakhé moo ngi moo ngi bu lu bële li Boy Ndiaga moo ngi moo ngi bu lu weex li. lii moo nekk deuxième combat de la soirée. diggante Boy ak Rajaxe ay naataangoo lañ ñoom ñaar waaye booy xool Rajaxe 2 moo moo ci gën a nekk booy xool wàllu wàllu wàllu Rajaxe 2 moo ko waaye booy xool wàllu joolaay diggante njaga Ndiaga Boy moo moo ko Ladeer Xëdër liggéey na de ci làmb deuxième combat de la soirée ngoog arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri di wax li làmb bañ ak ngi wax ak ñoom arbitre ñaari mbëri mi ngi laaj ay sixième diggante Radiakhé 2 ak Boy Ndiaga arbitre bi sifflé na mbokk yi deuxième combat de la soirée Radiakhé moo nekk à gauche moo ne woon ginnaaw Boy Ndiakha moo nekk à droite moom lañ jàkkaarloo noonu ñaari mbër yaa ngi leetoo diggante Radiakhé 2 ak Boy Ndiakha Boy Ndiakha sànni na léegi ko Radiakhé mi ngi jiital tànku gauche Boy Ndiakha mi ngi jiital tànku ah ñaari mbër yi jàppante nan Radiakhé 2 ak Boy ñoom ñaar jàppante ñaari i jàppante na Radiakhé 2 ak Boy Ndiaga Boy Ndiaga moo ne woon ginnaaw non Radiakhé moo ne woon ginnaaw Boy Ndiaga lañ jàkkaarloo Radiakhé moo ngem boo ngem lu bële li Boy Ndiaga moo ngem boo ngem lu li am vert ci kaw ñaari mbër yaa ngi jàppante ah Radiakhé Radiakhé fel ah lan la lii lan la la ilaha illallah jabaxal na ko jël bu rëy waaye mais mais mais Radiakhé bii kan la waaw Radiakhé bii ay ilaaha illallah yee daan na ko jëli bu rëy mais rajaxe mi kan la rajaxe mi kan la ah rajaxe deux mi kan la daan na ko jëli bu mi ngi noonu dem di ko yëkkati nii la fair rek làmb noonu la fair laa ilaaha illallah xale bi daan na ko jël bu rëy rajaxe lii mu dafa rëy macha allah wax yi loolu nekk deuxième combat de la lamb foola waaye ku daan rus waaw waaw waaw loolu am na solo alaaji Makura amati na nu mbégte jàkkaaroo waat ak yéen yéen nga xamante ni yéenay suivre la Bantamba TV mbokk yi siyaar nañu leen yéen ñi nga xamante ne lépp loo xamante ne nii rek dugal nañu ko yéen a koy suivre waaye yéen a koy partagé yéen ay commentaire yéen ay like yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp ci Facebook bi. après da ñëpp ñu ngi leen di nuyu.